hamdi wa shukri liman kulli bizaan law ridan duna suur tinin da sarsaan hamdi wa shukri liman kulli bizaan law ridan duna suur wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mboolem mbokk yi nga xam yëpp yéen a seetaan euh, ñi nga am mbégte bu baax a baax ginnaaw boo xamante ni jot nañ digal lu am solo loolu nga xam ne mu ngi jóge Cheikh Mamadou Mountakha Mbacké muy fas yéene jàng xasida ci bisub euh, àllarba dëppoog 1 août waaye dugg ci weer yi nga xam ne mooy benn fanu muharram wala ñaari fanu muharram mbokk yi ginnaaw boo xamante ni dégg nañ digal loolu xam Xamsatu Mbàkke moom sëriñ bu Mbàkke ni nga xam ne baaxoo na koo def lépp lu jëm ci xasida ci yoonu murit mu fas yéene ci taxaw taxawaay bu am solo ànd ak mboolem diiwaanu ahlu xasida yëpp ginnaaw boo xamee ne Cheikh Mamadou Muntaxa jël na ndigal li ndeysaan jox ko sëriñ Youssou Diop jëwriñu Hizbut Tarqiyyah mu ànd koog Serigne Hamsatu Mbacke moom Serigne Souhaïbou nga xam ne ku tudd xasida rek tudd xam Hamsatu Mbacke moom Serigne Souhaïbou fas yéene nañ ñoom fas yéene tàmbali liggéey bi ci noonu nga xam ne noonu lañ leen ko dundee ci mboolem ahlu xasida euh, ci biir réew mi fas yéene jëmmal bis booba bu la 11 jotee muy àllarba dëppoo benn fan wala ñaare fan ci weeru muharram atum junni ak ñeent téeméer ak ñeen fukk ak ñett si gàddaay yonent bi sallallahu taala wa sallam noonu rek lañ ko fas yéene amale incha allahu taala waaye ànd ko mboolem xisbu tarqiya ci lépp loo xam ne ay organisation la waaye ànd ko ëllu xasida ci durus xasida ci jàng ko ci rajas ak ci eh, yëkkati ak ci kuréel ak ci lépp lu mën a doon rek ñu fas yéene jëmmal ndigal loolu nga xam ni mooy ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaqa te mooy ñu fas yéene li ko tàmbalee juróom-ñaari jàng xasida ba keroog ñu julli tàkkusaan ñu yuy mbooloo yitte jooju nag moo waral ci ahlu xasida fu mën a nekk ci biir réew mi ñoom ñëpp ñi ngi àndandoo di waaj waajtaay wu am solo waaye ñi nga xamante ne mooy waa Touba ñi nga xam ne ñooy dalal gan ñi ku mel ni sëriñ xam situ Mbàkke ak ak njabootam buñ ko waxee ahlu yëpp dugg nañ ci ci njiital sëriñ Cheikh Mbacke ak mbokk yi nga xamante ne ñoom la jiital ci comité bi ñoom ñëpp ñu ngi def ay yitte rawatina nag li nga xamante ne mooy waajtaay wi jëm ci war a taxawal ay tànt yoo xamante ni mbooloo mi nag bu nu ñëwee foofa lañ war a nekk nag yendu fa li ko tàmbalee ci juróom-ñaari waxtu fas yéene jàng xasida yi Sëñ Tuubaa yi moo xam kuréel la moo xam rajas la moo xam durus la loola nag bu ñu dinañ leen bàyyi incha allahu taala ngeen seetaan image am solo yi nga xam ne di ngeen yëg ni kon gars yi tàmbali nañ liggéey bi ci penku jumaa ji li ko tàmbalee ci buntu barabu Cheikh Amadou Fadal bi jëm ci barabu Serigne Abdoul Khadir barabu Cheikh Mamadou Mourtala ba ci barabu Serigne Saliou foofu fépp fas yéene nañ faa jëmmal gis ngeen ko noonu bokk yi muy baas bu mag bu am solo boo xam ne loolu day daal di wane ni kon ñu ngi ci waajtaay bu baax a baax kon fépp faay man a nekk rek di durus xasida na nga xam ne liggéey bi ñu ngi ko fas yéenee tàmbali ci noonu ñu leen ko waxee wan ci fas yéenee bis boobu ñu jóoral sëñ Tuubaa ci xasida loo xam ne dana yëg ni bis bi moom la Cheikh Mamadou Mountakha woote woon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu lillahi kulli la lahu البلاد من ta حيث أبتدئ man jaanani bika fi